ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen tey ñu ngi fii ci li nga xamante ne mooy open press Thiatou Nguéweul mu war a jàmmaarloo ak ki nga xamante ne mooy Anaconda démb comme ni ngeen ko gisee dem nañ fa Anaconda am na lu mu wax yóbbal na nga xamante mooy Thiatou Nguéweul tey ñu fas yéene teewaat fii caatu ngeen wax ñu lan la naral ki nga xamante ne mooy Anaconda mais balaa loolu dañ koy bàyyi mu nuyoog suñu mbokku internet yi ñuy suivre ak yow ki nga xamante ne bii ko fekk ma ànd seeg sama ndaw rek ku bëgg a posé question rek nga posé question caat maa ngi lay nuyu. bien ñu ngi lay fay ginnaaw bi ñu sant di julli si rajo bi ñu ngi gërëm suñu ñaari waajur di gërëm sama yaay bu baax a baax a baax di ñaanal sama papa bu mu nekkoon. yàlla mu gënal fi mu jógee di nuyu waa Yoof di nuyu Ngor Wakaam Yoof xam nga di nuyu Almadi Traoré di nuyu ñëpp di nuyu waa Yoof aussi di jël nuyoo waa Yoof si loxo xalifa di ñaan mu yàgg fi te ànd ak wér di ay leeram te tasul si barkeem di nuyu nga xamante ni moo fi nekkal Serigne Touba aussi di nuyu sama Serigne Serigne Cheikh Fall di nuyu maam Salim Fall di nuyu Tidiane yi fi nekk xaadir yi ñaseen yi maa ngi nuyu ñëpp di bëggee ñëpp waaw di la nuyu di nuyu cameraman di fi teew di nuyu aussi assistance bi di nuyu sama mbokku bëri aussi tamit di nuyu staff yi yoo bu baax a baax di nuyu sama coach su Abibou di nuyu sama coach su Baye Ngañ di nuyu staffu écurie Yoff bi ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu mbër bu baax a baa a baax aussi tamit di nuyu sama mbokk yi fi ñëw tamit ku si mel ni gaaro gaar di gërëm yaxi bambiloor di gërëm Koña 2 sama doomu nday ak yeneen champion yi seen waa écurie moom maa ngi bëggee ñëpp bu baax wax dëgg yàlla taxaw nañ ma si combat bi quoi. ah démb ñu seeti ki nga xamante ne mooy Anaconda nga war a jàmmaat moom incha allah le 6. nee na da ngaa dugg ci loo xam lan ngay moom xelam moo toll foofu muy wax loolu noonu rek mais caatu ngéwél instant yi toll nii maanaam ku ma gis sax xam ni foofu ma quoi damay làmb te barki Seydina Muhammad na taxaw dëggal boppam rek dinañ bëre dinañ ndax lamb ji damaa jaral trop te moom bu ma jaralee benn man jaral na ma fukk. bu ma jaralee benn. jaay ngeen gëwël ñu doon moo ngay gëwël ndax say supporter est-ce que pare nga pour Sango Ndiaga xeex ak moom am jaay jox waaw maa ngi gis muy wax loolu ay si affaire bi ay gëwëlam yi na bàyyi yooyu noonu bu mu dugg si commune boobu domaine boobu heure bu su duggee rek ñun quoi moi je suis fier d'être griot mais nag bàyyi domaine boobu. Eh, Anaconda moom li may wax ak moom dafa bari ñun quoi maa ngi koy ñaan bu fekkee da ngay dëggal boppam. bu dëggalee boppam dina xam ne géwél bii du géwél buy tàllal loxo géwél bii du ma waajal. waaw incha allah danaa gis. bu fekkee anaconda dafa indi ji muy neexee. barki Serigne Fall li ma lay wax mu dëgg la anaconda bu xëy rek ma dugg bu bëree bu bëree ma daan ko maa ko gën a pare fuuf combat bi dama see daj ay coono maa ngi gërëm aussi sama coach Mouhamed damay teg lu miti barki Seydina Mouhamed man Rasoul maa ngi koy gërëm bu baax combat bi ma si ay coono bu baax di gërëm waa Bambilor aussi waa. fan booy tëj nga gërëm. waaw loolu dañ lay may nga gërëm. sa diggante ak Anaconda dafa non Anaconda amuñu règlement de compte mais xam nga lan mooy problème bi booy maanaam ku siy bëreeg man da ngay jéem da ngay jéem di wane wu quoi est-ce que yaay comprendre ku siy bëreeg man da ngay jéem di wane wu ndax xam na ni bu bu bëreeg ñun nag taw da ngay ñu bokk quoi mais nag suñu baal la dëggal boppam rek. asalaamaaleykum maa ngi nuyu sama mbokki presse bi maa ngi jaajëfal ñëpp jàmm yow maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay Modou Ba. jaatu ñëwal da a jógee sa diggante ma booy Dakar fële sa arène nationale yàlla def na mën si kaw booy Dakar nga ñëwal si Anaconda muy xale bu weex est-ce que pare fay say supporter bor bi nga leen yore. samay supporter incha dama leen di fay bor bi man maa booy Dakar ah. maa booy Dakar dafa am lenn lu may leeral ah. booy man samay supporters làmb ñëpp xam nañ ne am na daan am na daan mais combat boobu xam nga lan moo tax maa mel samay supporters dafa ma xeexu ma bëréewu ma xeexu ma daanu loolu yalaate la te combat bi ñu ñëw incha allah anaconda nga taxaw fu mu taxaw dama ko may fekk sama supporters yi incha allah dama leen dina dina lam bu soobee suñu Hey, I'm gonna help you guys. salaamaaleykum. maaleykum waaw. Thiatou Ndoye maa ngi lay nuyu di la ki nga xamante ni. mooy Anaconda. yow rek am laaj bu ñu ko laaj. muy nit kuy jooy mën na nax jooy. yéen ñaar dafa mel ni daa am naxtal boo xam yéen ñaar moo tax mën na jooy mën na nax kuy jooy. waaw may waxal. ki muy waxal ne kuy jooy nax kuy jooy ko jàmm jooyam sama doomu ndey la. te incha allah moo may ngeen mu ñëw duma ko daan ñu wax incha allah moom laay yëngu moom la duma ko daan ko bu soobee suñu borom. mais mais am na leneen lu ñu yóbbu nee na seetaan ngeen diggante gi nga xam ne mooy réparé. Philippe Lac la ko def mais yow lu raw loolu ko seen diggante yéen ñaar. Ah, non da ngay réparé ne jaatu ñu réparé champion la mais li si réparé du si man li si man du si réparé. Ah, Anaconda bu soobee suñu borom. li may wax bu wax bu bëree rek mooy loolu day yàgg ana Kolda ana moom bu doon jëflante. mais nee na dafay xew yëpp moo koy def. war naa ko nee naa ko léegi xew moom nee na comme dëkk bi moo ko bokk moom na mu woon seetloo naa ko nee naa ko jëlal lépp jëlal ambiance jëlal am li si wattee jëlal yëngal instant bi jëlal lépp waaye bu soobee si moom may laal. waaw waaye gërëm ñëpp di gërëm waaye kii di ko commencé si mbëru mag yi di gërëm Moja di gërëm Thiat Yoff di gërëm euh, sama yeneen gars yi ay Jame Faye ay Touma Cox Ablaye Diop di gërëm sama grand benn biraay maa ngi koy gërëm bu baax a baax di bëgg waat encore une fois mbëri mbëri di bëgg ku mel ni Gaaroo di gërëm Modou Faye di gërëm Koya xam nga di bëgg ñëpp di bëgg waa Bati Thiali waa Thiali maa ngi leen di bëgg di bëgg aussi waa Nangar yi bu baax waa Ndina Daara Duda Mbacar Mbengue juróom-ñaari benn yi ñoo pour mu am ay mayaar foofu mayaar nekk ñu ngi lay bu baax a baax waa Niayes si combat bi di woo sama bàjjen bu baax sama bàjjen woo di woo doomam Karim di woo Ndeye Fadi di woo Paa Oussou di woo Marie Magoura xam nga diw këram bàyyi jëli tarkindaa sama doomu ndey di gërëm waa Ouest Foire waa Nord Foire mais bàyyi jëli tarkindaa maa ngi gërëm bu baax jàpp na si combat bi bu baax a a baax di gërëm ñëpp nag maa ngi woo ñëpp di woo sama ndiyaay Jaas Mbay di woo mu ñëw jàpp si combat bi Bamba yi Jaas Jaas di woo aussi maire Yoff maire Yoff maa ngi leen di woo bu baax di leen wax ni jàpp si combat bi. non dama li ma leen di wax du leen wax sax ñu jàpp si combat bi waaye ñoom bu dee si dëkk bi xam nañ li xew si dëkk bi. Ah, te booy yi dañoo bëgg ah, lu lay doyee mooy bu ah, ngay jàppale ñi nga xam ne ñooy say acteurs. waaw nan la jàppale jënd billet yi instant yi tool yi ba ñuy wax kenn jëndul benn billet dañu ne yow am na monsieur le maire loolu jaaduwul di woo di woo ministre Abdoulaye maa koy woo bu baax di woo Dialaye Jamaram di woo di gërëm ñëpp di gërëm sama waa koñ nag bu baax a baax di bëggee presse bi maa leen di bëggee bu baax di bëggee sama booy mayaar sama di gërëm bu baax képp kuy mayaar maa ngi lay bëggee di bëggee ñëpp jaa ngeen jëf kontaan